am na benn politicien bu ma mës a man de xam li ma gën a bañ nga woo ma ne mu waxal ci nàngam déedéet man li may wax man dama koy sentir waxal ko sama bopp mu mu engagé ma fii lépp lu ma feex rek man la engagé mais dama ne la li man du ma sëriñu businessman du ma neexal nit yaa ngi dégg man musuma taxaw ci nit pour audience yaa ngi dégg man dem ci nit naan ay DG ñëpp ñu bari ñëw damay liggéeyal ay kii am na ñoo xam ne man du ma wax li ma nit ñiy def ma man damaa bëgg rek li ñu def ku wax ku def Sénégal dara su ma amee jot ma wax ci ñaata nit ñoo nekk ci ñoo nekkoon ci nguuru Macky Sall ñëw ci man ma ñaanal leen yàlla nangu ca laa leen gis. ci yow mii lañ ñëw. man mii xam nga pourtant mënoon naa bu ma am nañ ñoo xam ne ay directeurs yoo xam ne ay ponk ay ministres yoo xam ne su ma toogoon ci nguuru Macky Sall ma wax ñoom ñëpp dañ daal. mais wat sa maanaam wor sa ki lay jongal nga war ki lay jongal moo gën nga war war ki lay wat ndax jongal benn yoon lañ koy def mais watu saa boo bëgg su saqee nga watu wat tey ñi ana ñu ngi nii ñëpp dàq nañ leen xam nga soo gisee Macky Sall jàmbaar la de. yaa ngi soog a ñëw nag. sa wiiri gi temps bi temps bi li ñu des ci temps bëriwul temps bi li ñu desee bariwul maa ngi ñëw. maa ngi ñëw fa ngay tënkee sa wiiri bi yëpp fa nga bëggoon jëm man ma lay déglu attentivement yaa ngi wax ma lay bàyyi ngay dem yàgg yàgg fa nga bëggoon daanu moo tax affaire de manipulation yi ça ne marche pas. Macky Sall ku yàlla suturaal la musuma ko wateel musuma ko wateel mais musuma ko wateel mais ku yàlla suturaal xam na ko yàlla suturaal 2012 ba 2024 Macky Sall kenn musu ko gagné élection Macky Sall nekk gañe na Ablaye Wade ba jóge fi kenn mosu koo gañe élection bu mësa am gañe na ko kooku sutura yàlla la ku war a sant yàlla moom Macky Sall loolu rek jar naa tax muy julli di woor di sant yàlla di jéggalu li nga xam ne def na ko te baaxul yaa ngi def na fi lu bari lu baax def na fi lu bari lu baaxul xam nga soo waxee Sénégal da euh, maanaam dañuy da lay ngay gaaw a yaa ngi dégg Macky du fi nekk ba musumaa dem ci moom musuma wut audience mos naa toog ak benn ministre ñu wax ma wax ko benn dëgg bi may ubbi sama télévision bi mu ne ma man ak président ñooy ndikkee ndoo mais dinaa ko wax yaay kan xam lu ma ko wax damaa ubbi télévision locale bëgg mu dem international ma soxla kayit yooyu mais man Macky mosuma ko wooteel de ndax doyuma billaahi wallahi taala loolu laa ko wax mu ne ma lii nga ma wax nit musuma ko wax ndax ñiy wax dañuy ñëw fii naan waaw ci parti bi laa bokk ma ne ko bokk seen parti mu ne ma lii dinaa ko wax Macky Sall soo bëggee mu mu jël la audience ma ne ko li ma lay lijjantiloo soo ko mënee lijjanti jarul may dem ci Macky Sall mais ku xam koo xam ne jàmbaar la borom fit la am na personnalité te it dinañ ko jooy yàlla na ko yàlla defal jàmm foofu mu nekk noonu ak njabootam ak ñëpp ñii yàlla na leen yàlla defal jàmm mm-hmm. man nag ñoom yàlla nañ ma fenn loo loolu laa bëgg uh-huh. maanaam ñu def loo xam ne sama wax ji day dandu mais pour mu dandu nag problème kon nag nañ xam ne Euh, man daal maa ngi fi damaa noppi woon nag waaw nekk ci ay yitte buggu moom sax kii mais comme li ma sànk rek maa ngi jéggalu ñi nga xam ne seqoon nañ ay liggéey te jotuñu ci ak ñi ma xam ne bëgg nañ maa kii bi ñu may tëjee nag mooy at ma jot douze ndomba lay defar fukk ak ñaar fukki ndomba ak ñaar mm-hmm. at ma jot moom lay defar mm-hmm. tàmbali naa ko mm-hmm. ku ci bëgg xam nga douze personnes du ko passé am na it ay cuuraay yoo xam ne yu doy waar saabu mi ngi fi maanaam euh, bagage yi daal ñu ngi fi. nañ gaaw waaw jërëjëf Mountakha kontaan nañ lool ci dalal yow moom dangay ngay sama waay dañoo yàgg lool yow moom saabu ma soxlaa da may am moom waaw saabu ma soxlaa gaa yu bëri woo nañ ma site yu bëri yow te xam da lay jaxaseeg adduna bi da ngay wax ñu dagg ko yokk ko waaw yow nag moom borom baax nga maanaam bu ci dagg dara nag li mu wax yëpp dagg dara dugalal lépp lépp assumé naa ko may gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax euh, ku ma soxla daal bu dee whatsapp la da may woo 666 39 60 boo ma jotul yónnee fa message 77 666 39 60 boobu moom boo ma jotul ku jafee jot laa nag mais boo yónnee message rek dama lay woo damay toog benn jour boo xam ne damay déglu message yëpp woo la téléphone bu dee nag ma bëgg a woo appel normal nag da ngay def 78 77 euh, euh, nga def euh, nu mu tëdd 668 08 38 boobu moom 24 heures sur 24. soo mooy rek may jot 668 08 38 boobu 77 la moom it ci kàttanu yàlla bee moom 666 bi am na appel normal mais whatsapp bi laay gën a utiliser te boo mu wooyee sax da ngay bàyyi message foofu ci kàttanu yàlla comme ndomb yi ma la waxoon nii fukk ak ñaar la euh, ci kàttanu yàlla at mu jot nag moom laa ci defal duma ko yokk duma ko wàññi gars yi xam nañ ko bu baax jërëjëf Mountakha di ñaan waa jàmm ji waaw ñoom jàmm ji info yàlla nañu dem dem ca kanam waaw jërëjëf mbokk téléspectateurs yi jotaay bu yaatu ak sëriñ Bass Bamba xéewal PDG bu xéewal TV euh, tabarkàlla yaakaar na askan wi tam di ko bàyyi xel saa su ne ci mboolem ay plateforme ngeen koy gis itam muy def jotaay yu am am solo ñu di ko santaat bu baax gis ngeen ko itam ni ma ko waxee noonu saa itam noonu lay ñu ci bëri xam ko ci bi nga xam ne da ci yëngu ci wàllu ñaan waaye itam ci wàllu paj ñu bëri xam ko ci bu baax a baax a baax waaye itam di ko santaat bu baax ci bi nga xam ne tey may nañu ko fii ci tey ci diwaan Rufisque fi ko fekk tey euh, ci siège ci këram lañ ko fekk tey ñu di santaat bu baax a baax a baax baax kon sëñ Bass ñu ngi lay jaajëfal tam euh, ak euh, waa jàmm ji info tam di la jaafal disponibilité bi nga xam may ñu ñu ko ñu di leen sant mbokk ko yittewoo nag moo ngi euh, na amaana li mu wax leer la ku jafe jot kon ñu di ko santaat bu baax ki disponibilité di ko ñaan tam di nuyu mboolem ñi nga xam ne famille bi ñu fi fekk tam di leen santaat bu baax a baax mbokk téléspectateur yi Mouhamadou Lamine Mountakha di leen jox dig daje ci beneen jotaay ak beneen plateau ak Serigne Bass